sant yàlla bu wér. mais waaw bés bee ka laaj quoi dañ ma yab ku di la avance si may mbokk ñoom ñëpp yam kon dama war a dal quoi am ndam pas protection quoi. combat bi tey am si kàttanu yàlla lépp lay am. lépp moo daan daa waaw te yàlla yàlla si kàttanu yàlla dinaa ko daan bu neexee yàlla suñu borom. baax na bonne chance si kanam. incha allah Jackson bëgg naa la. fayal la. ci loone maa ngi nii am jàmm bu baax. mais félicitations ko jël bi nga daan rëy na trop. waaw merci waay merci. tey naka nga ñëwee. waaw tey dama ànd ak sama mbokk. ànd ak waa benn baraak. gars ma nuñ ma war a yabee. waaw tey nag ñu ñëw ci làmb ji. am ndam incha allahu rabbi. dama lay yóbbante. Moustapha Diop xam naa yaay mbërëm. Tafa tam dëkk Parcelles. waaw waaw ma leer. loolu ma ay morom yoo xam ne ni. ah teg choc dañ ko bëgg te waaw euh, di leen wax na tamit di ñaan suñu borom yaakaar bu ñu am ci man yàlla bu mu tas ndax man dama bokk ci làmb. waaw du yomb man bëgguma lu yomb man sama combat boo ko seetaanee amul benn bu ci yomb bëgguma combat bu yomb incha allah rabi naa ko tànn jël bu bu neex suñu borom. yaa ma ko dig. incha allah rabi te di bu neex incha allah. kontaan naa biti. mbër wan. bi taxawoon fee tam ah, nga làmb moom ku si nekk sa mbir rek ngay ngay waxal moom ngay conseil noonu la demee rek moo koy wax mu góorgóorlu. da nga andi Youssou Ndour naka nga ko andee. waaw Youssou Ndour liñ koy indee mooy mu waaj pare ñuy xaar bis bi rek yàlla def ci xéewal yàlla may ñu ndam. ñëpp nee nañ ki muy bëreel ki muy bëreel daanaan la mais Youssou ndaanaan sir ndaanaan la. am na ko ma wax léegi ma ne ko Youssou gis naa ko mu diis ma ne ma caatu yoof doole daanu. non ñun bëgguñu doole yàpp bu bëri. Youssou dafa wàññi poids ci làmb ci barki Seydina Muhammad. billaa wallaay. mais si kanam tuuti. yàlla baax na dinañ xam diis ak doole dinañ leen xam yu ñuy jaawale. yàlla ñu yàlla may wér rek si kanam yàggatul. kaay kaay tey naka nga andee sa rek wala sa sa laay wax sa sa doom sa lépp naka nga ko andee. sama rek sama xay indi nga nu indee rek. ànd na ñaalu na def la war a def. nu xaar ci kanam tuuti rek yàlla may nu ndam lu gaaw incha allah. Ah, mu nekk combat xale ku ci génn

baax na ba ci kanam. a ah, ñoo fari sala nuku yaa bëgg naa la waaw wasaare maanaam jili sax Ousseyn maa lay bëgg mais dama la gis nga taxaw di xiin xiin lu non waa ji lay xaar mu ñëw dama ko gisul waa jeeg seegul ah, dina ñëw de incha allah waaw mais tey lan nga yëg li ma yëg bëri na ndax bool ñëpp ñoo ne sama ginnaaw ñaanal ma barki sëñ Fall man maay sagu bool maay mbëru bool di wax gilo seraat na gaaw tuuti rek ñoo ma defaral ko maa ngay dégg mu naan Nokia màkk bu yàgg. boo merloo waay gaan sama yaram dafa tàng laa la wax Bawol ñoo ma yónni yàggam te waaj laa xaar mu ñëw ma defaral ko. xam nga ni jékkooguñ la man kenn damay jékku su mystique te Bawol ne sama ginnaaw man Bawol laa yaakaar yaakaaruma leneen fa laa juddoo. may wax yow Seydou. danoo la wax. barke sëñ Fallou man mënantuwuma danoo mën po mi lu ci kanam tuuti dina leer wasalaam. kon baax na. mbër nuyu naa la. maa la fay. ci loole. maa ngi nii rek. yaa ngi jàpp de nu mu demee. rek. waaw. yow de fi mu toll nii du ma la wax kenn du na la non kan laay maa ngi nii tout est bien. Eh? maa ngi baax naaj kay. wax sama adversaire mooy paa bee nee ci moom laa waaw Rambo. waaw Rambo paa la. Rambo jeexal na boo ko jàppee. <laughs> Ah, waaw yéen na tàkk yooyu yu mag la. tey naka nga ñëwee. tey daal damaa ñëw sawar waataan yab ma parcelle Faaf Mbaaw xam nga ñoom Maguette Mar sama gars yi nii nga xamante ne si damay tëdd ba guddi sax ñu yeema ne ma demal nga entraînement ji ñoom entraînement amul heure ñoom heure bu nga centré rek danaa ma demal ma indi doole ji wër peñ kii moo ñëwee bu ñu duggee si naa ko ne ko xale te daam fu ma bëgg a dem moom dafa war a dem toog xam rek bu ma yàqal mag moom mag la tamoon xale laa kon baax na bonne chance incha allah jaajëf waay Zoss bu ziar. waaw delloo ziar Baye Fall. ci loone waaw sant. yaa ngi ngand ngand lu mu tey tey naka nga ñëwee. Ah? tey naka nga waa tey ñëw ni ma comme di ma daan ñëwee rek xama waaw fas yéene xam daan ñibbi quoi. waaw looloo ma tax a jóg loolu lañ ma yebbe quoi. looy wax sa adversaire. man li ma koy yóbbante bariwul moom fu mu teg làmb ji di foofu. non dafa réer mbir fu muy roote man fa laa dëkk. dama ñëw ba sa dëkk dafa roote. waaw déggoo ma de fu muy roote man fa laa dëkk daa fekk ma root ba bàyyi mu ñëw di root waaw. kon baax na ba ci kanam. waaw waaw waaw. noo tuddee sax yow. Wassintor jën jën coof. <laughs> Wassintor ban bu baax wala bu ban. non jën coof xam nga coof moo gën a gën a seer ci jën waaw mu laa tuddee sama bopp. waaw mooy loolu waaw. booy bi nekk géej waaye waaw euh, alwaxa ñu ko doon ordinaire moom laay bëreel bébel ton fan nga toll ci waajaay waaw ñu ngi ci koom man moom xale bu ndaw laa di woo woon ak autorité ñoom ñoo jàpp parce que bés bi bu kii bu ma ko daan daam fu ma yóbbu ci làmba man mii xam naa loolu moo tax ma bëgg ci teg baken bi waa di ci woo ñëpp nag waaw di woo waa Thiès waa ñàccu ker fi ma dëkk bàyyi ma leen waa Fatick di woo ñëpp nag combat bi daam fu ma war a yóbbu ci làmba Ousseyn man xale bu ndaw laa 2010 saa juddu. waaw dama bëgg gars yi jàppale ma dama bokk ci lamb. 2010 saa juddu Ousseyn. Adama gëm nga waaw hôpital Ndamatou laa juddoo Touba booy bu ndaw ma toll nii kon bu ma liggéey. Elton waaw lu ma ko wax mooy maanaam na pare rek. parce que combat bi ñun dañ ciy dem ak jom fit a xel. waaw na pare quoi xam ne mu ngi doog am combat. waaw. mooy ànd waaw incha allah ni kan la yegg si. yegg si la. fan ngay yegg si. ah fa fi ma fekk. <laughs> mais ci loolu. sant wér. mais fan waaye maa xaar gars yi rek. gars yan. ah yi ma war a bëreel ak promoteur yi. Ah. yee. comme ñan comme ñan. ah mbër du ma tut mbër parce que man moom champion laa dimanche rek maa jël garaayo du ma tut ba ni mbër ku bugg daal ba ñëwee ñu bëre man aw ma aw ma aw problème mu adversaire daal. yee. baax di ñaanal sortu buus ndam rek yàlla may ko ndam bu gaaw. barki Sëñ Bamba waa seen tele ci kaw ci kanam jaajo sam waaw. Thiat Colobane ci loolu. maa ni nii maa ngi fay. yaa ngi am lépp jàmm kay. kay naka nga ñëwee. waaw ni ma war a ñëwee rek laa ñëwee. Ah. waaw ñëw nu ma war a ñëwee pour am ndam dem yóbbu ko. day meññee nee day meññee làmb man dama ñëw pour jël li moom ko waa Colobane gisoo nuñ sonnee si man xanaa. bilaay booy dañ sonn si man de dama leen war a fay rek. booy dama leen leb lu bari doole laa leen leb dama leen war a fay. kañ nga leen koy fay. lu bëri déggatul léegi ma fay leen. léegi léegi si kanam tuuti rek. baax na kon ba. nice. yow looy def. non sama problème mooy bëre quoi. non looy def ci kaw. non li may def ci kaw xam nga rek mooy problème mu CNG rek xam nga rek bañ gaa teg ma gaa man gaa teg ma daan rek moo tax quoi ma toog fii respecté li ñu wax quoi mooy loolu. est-ce que loolu dina yomb ci yow sa di bëre nga aju ci kaw. non du yomb si ma mais dinaa ko gérer quoi. parce que daa daa suuf suñu ma teg waa suuf suñu nag foog ma gérer ko. waaw na kon ah, caatu koroba caatu koroba. déglu ma daa lu may wax. ma ñëwaat ku wax waa lamb. waaw barki alxuraanu karim. dégg nga bàyyiwuñu mbooloo bàyyiwuñu Balla Gaye bàyyiwuñu kenn roi des arènes bi la ñuy jël. déglu ma laaj ma ka moo koy jël. ka moo koy jël kaddu Colobane laaj ma fa teg wax bi. ko teg barki alxuraan mbapat bu ne dem naa ko. su fekkee ne loolu dëgg yàlla bu ma kii ko teede gi. mbapat bu ne dem naa ko. barki alxuraan taxaw. kenn du la ci. ñun fu leer lañ teg ne mbay métier lañ koy daal. Mbaye métier paa la waxoon nañ ko ko ci signature bi paa la caatu Colobane lañ am moom moo fi ne roi bi soobee yàlla moo koy caatu Colobane kese. wala mbokk non ñoo tax ma ne sama bopp ñu am ma seen fay xool xool xool xool flocage bi li ñii kenn fay faal. mais nag am nga combat bu métti tey. loolu loolu neex nag loolu la bi da nga xeex bëre daan jël bu rëy. incha allah si kàttanu yàlla combat bi di ñëw ba teg soog dina am xeex dina am bëre. teg soog nee na jël bu rëy la lay daan papa nekk sama yoon rek ma ak moom sax. dina bokk moom. soog li moo def moom defu ko si làmb man du ma ngoom sama adversaire ñoo gën a dista soog fuuf may en action yoon dama ñaan yàlla mi may ndam yàlla mu yàlla may ndam si kawam loolu kese ñaan mais gars yi moo am dëppoo na capuchon ba caatu yoo fa ngi noonu je suis là ala kaani Tonnerre nuyu naa. maa lay fay. Koña 2. waaw maa ngi nii. ci loone sant yàlla. tey na ko rek incha allahu ci kàddu tey teg rek wax la. incha allahu rabi dañuy am ndam ci kàttanu yàlla. combat dinañ xeex. xeex dañuy euh, xeex nga. xay man mbaa war a bëre loolu laa jàng bëre. da ku njool da ku gàtt. lu mu lu rek ma ngeer ko maa gën a soxla combat bi fuuf. yaa gën a daa bëgg bu ñu ci géew bi lay comprendre incha allah dañ mu ñibbi incha allahu ci kanam. kon baax na bonne chance. incha allah bonne waaw. waaw. waaw dafa mel ni yaa ngi koy métier. yàgg na. tey lan après lay comprendre. après kañ. si kanam tuuti. combat yi ñoom xeex. non mën naa bañ a jeexee sax si xeex. mën naa bañ a si bëree. bëre bi nga gën a tey ma maa xar. naa nee ci yoonu nga bokk da lay faxal waaw waxu mbër rek. boo ma xoolee xam ne liggéey naa kanam la ñuy comprendre baax na ba. boo joxaa looy lijjanti. ah looy lijjanti. bagage yi laay lijjanti rek. bu jëlee ba. waaw naa xale lañ dañoo Cees dañ ñoo yaakaar quoi. maa jox benn butéel muy. loolu dara. tey naka nga ñëwee. waaw tey comme nuñ daan ñëwee rek. làmb nekkatuñ ci gan quoi. ñaan yàlla yàlla suturaal bi nag may ñu ndam. koy bëreel. George Bruce. maa ngi bëre ku xamadi. <laughs> lu mu la def wala lu mu la waxoon. keroog bañ signature ba pare dañoo génn mu may saagaay nday te ñun duñu yàq làmb parce que mooy suñu métier mooy suñu liggéey waaw ñun bu ñu mbër doon saagaak looga lool duñu la sax lijjanti mais bëree fi woon fan yépp maa fi bëre woon ak Tigre Junior bu Lamsaar. douce mu maa ngi nii. tey mën nañu xaar lool. lañ jox ay géwél. loolu moo tax. mais dinañ ko tuus incha allah. waaw. kon baax na ci kanam. jaajëf gaynde. mbër maa lay fay. sant yàlla bu wér. mel ni fi mu toll nii da ngaa commencé. waaw ñu ngi sant bu wér di ñaan yàlla rek. ni ñu yëgee suñu bopp nii ñu dugg si géew bi yëgee noonu suñu bopp yàlla mi am ndam di ko suturaalaati def ñu defal ñu ko. nee na moo la gën a bëgg combat bi. moo la gën a soxla ndam te buñ duggee ci biir. dina la bëriloo ba da ngay xeeb sa bopp. waaw baax na si. olof ñaar nee na wax fu fu fu jëf am wax amatu fa solo. yee fi ñu toll nii jëf loo si des. kon loolu la wax. incha allah géew bi yaakatul. dara maa ngi sant yàlla bu baax maa yëg sama bopp alhamdulilah. kon baax na. yee. di dellu siyaar. loole sant yàlla bu wér. Eh, da ngeen guddee ngeen tardé wala ku leen dee. Oh, tardé wu ñu politiciens yi la dëkk bi. politiciens yi ñoo ne ci kaw télé bi waaye du ko tardé pare nañ bu yàgg waaye yow nag di ngeen def nañu pare que deux heures de temps politiciens yi donc la waaye tardé wuñ. naka ngeen andee tey seen mbéy muy Guiro Séras. waaw entraînement bu baax bu wóor. waaw bu wóor. waaw man man nga ëpp wóole na waaye doo ko doole te buñ jàpp ne nga xam ne ki ëpp ko doole ndax yaa ne sànq ba léegi fi la taxaw di leen séentu nee na lu mu di ngeen ñëw te dina leen duma ba ngeen tëddal seen waaw après après après bu combat jeexee nga laaj ko ba xam li mu wax ak lu am benn bu combat ko dégg bu combat bi laaj moom da nga dem ko ba xam li mu wax ma te yaakaar ko sax li nga waaw ah, yaakaar naa ko lool waaw dama koo yaakaar waa indi sama copain sama doomu nday rek bàyyi giro seeraas barki alxuraan xam nga man cumbukaay laa ngaani waaw waaw bilaa mais tey naka nga ko naka nga ko gisee waaw tey ñaanal ko ndam rek barki alaaji Fallou Mbacké ñaanal ko si barki juróom-ñaari sëñ Fallou ñaanal giro ndam lu rëy léegi bëgg koos non dañ ko soxla ko waa ndam loolu noonu mag mag la am na ku yaa yaram baal mel noonu rek mais tey kii booy yëpp a ko topp borom escorteurs yi amuñu seen fay booy parcelles yëpp génn booy fajaay Cambérène 1 Cambérène 2 tey moom yàlla na ko yàlla may ndam rek amiin bab aara aara nuyu naa ziar bu na mais yaa ngi ci waaw tey maa ngi ci mu gaaw baabi baabi waaw sëñ Paul yàlla defal ndam ñu dem feete ko yow incha allah te am nañ si yaxin bu baax woo Dakar daal lu mu la woo pare naa ndax man maay xale te damaa nekk si yoon damaa war a dem si laamu quoi. jaajëf waaw ba si kanam. boo koy caatu dana caatu Colobane Mbaye Maintien caatu Colobane la ñu jàkkaar lool Mbaye Maintien Abu. Abu ziar naa la caati Kolobaan Mbaye Menthié. journaliste yi bàyyi leen saraxu mbëri ngir jëm Serigne Touba. xale yaa ngi ci digg géew bi. Mbaye Menthié caati Kolobaan. bu moytuwul la. ba li nga waaw moytu da koy songale point fort la. est loolu lay wër nii. Ah, Papa Thion la. daan na ko. daan daan na Mbaye Menthié. <laughs> Caatu Colobane daan na Mbaye Maintien xëcc na ko moom mu ñëw mu tegal ko mu tëdd ca mbëru Wally Seck mi daanu na. <laughs> waxoon jëfe nga waaw man loolu laa mel. damaa yàlla. mais da nga ko xëcc nga tegal ko bi nga ko kaay tëdd par force. waaw man damay bëre. man bëre laa xam bëre laay def. barki seen xëy na nee moo la magoon moo la jiitu ci làmb. te daf la noonu te dafa noonu jëflante ak yow. waaw man lu ma indi fekk na fi lu fa gën a wow. lu ma indi moom. dafi doon fekk lu ko gën a wow ko te wane naa ko dèjà barki Serigne Bamb di sant nag waa écrit Colobane na su ma nekkee mbër ñoom la barki Serigne Bamb su ma takkee ngemb ñoom la maa leen di sand bu baax di leen delloo seen waaj waajuwaay di leen nan aw ma ñu dul ñoom su mel ni Kosu Bàcc ak euh, Sooru Fall. mais ñun ñoo ci des. waaw man sama yoon du ma laaj xale yi nag man xale bu ndaw laa dañ ma jox sama morom waaw. ñoom ñooy sama morom ci làmb ñoom bëri fi booy fi nekk di ma lim. wa waa père man samay kiri am na ay champion yu toll ni ñoom damay bëre ak ñoom ñu may jàngal bëre waaw su ma daanoo ñu ne ma lii moola la daan nii ngay def ba mu deñ waaw loolu laa am rek pour wane bëre te loolu laay def loolu laay wane quoi bar sëñ Bamba jaaxaluma quoi ponkal waaw. baax morom yi nag. waaw sama morom yi nañ ma leen ma daan len kon baax na ba. waaw incha allah. looy def. <laughs> yow xam nga ne déedéet eh, dama la koy laaj la nga fi def. sama mbër na indi Giro Seras. mais da ngeen tardé nu mu demee nekk ci bagage rek. ak embouteillage bu xat bi loolu moo ñu téye quoi. Ah, leen di taxaw ci porte bi ne yéen lay seet est-ce que du ngeen daw <laughs> na bàyyi woon dugg ci gi rek. pare nañ combat bi de. pare jóg nañ ci bu baax a baax a baax pare na yàlla nag mooy maye ndam. mais li waroon ci combat bi yëpp def nañ ko te dañuy ñaan yàlla may ñun. bi dina xeex. xeex bi laa ci gën a yaakaar man. Alioune Mbengue nee na est-ce que duñ ko daal. ah man de moom man dama ñëw pour xeex ak moom. Ah. waaw. baax na ci xam ah, dama ñëw daan ko. <laughs> ana laaj Diop. <laughs> nee ma ana monsieur le maire. ana monsieur le maire. monsieur le maire mais mais élection yi ñëwagul. élection yi ñëwagul élection yi jeex na ba pare. ñëpp xam nañ ni golf moom. Lat Diop moo ko moom amu fa adversaire. kon gagné ngeen ni ba noonu. li liggéey golf liggéey ko géejewaay yi. du pour candidat bojo bojo yi nii tamit. barke Serigne Touba. ay bojo bojo fi nekk. xaw ma kandaay kandaay yoo moo ne ma ne ñoom élection maa leen. dama bëggoon la kandaay rek xaw ma leen. ay xaw ma koor man am na koo xamante ne tur bi koorang ci yooyu noonu man meex man xaw ma leen. Lat Diop moo fi ne. kon daal championnat mën naa ne doxul tey. non <laughs> non du mars waaw Lat Diop ak ñoom moom du mars. kon baax na ci na yàlla na nga seet. Fallou Kalando Rambo. Fallou Kalando Rambo ko. Rambo jël na ko mbay eh day daanu day daanu day daanu day daanu daan na Rambo. Fallou Kalando daan na Rambo. eh combat ba gaaw bi dafa waaw combat bi ni ma ko bëree moom xam nga mag la ma toroxal ko moo tax arbitre bi siffle rek mu jàpp sama loxo ma dugal ku xëcc ko delloo ko mu toog. kon dugal coup waa na fi ko coup waaw dafa gaaw nag man sama affaire dafa gaaw dama ko dugal ku mu ñëw rek ma delloo ko. li ma doon wax naan ma mole paal ak mole xale. a bëreel. man ni ma def kii noonu laa leen def incha allah rabbi ci kàttanu yàlla di gërëm mbay di foncé mbay aw ma fayam. kan mbay di foncé ma la. barke alquranu karim damaa fekk maa woo ba ma ñëw ma ñëw di foncé ma xaalis bu bari jox ma ko ni ma fiis demal aw ma fayam maa ngi gërëm bu baax mbay di gërëm waa Tivaouane di gërëm ñëpp di mbay ku ma gay waa parcelle ak ñëpp ku ma gay laa mooy victoire bi Seydou Nino borom Lazio gisoo moom nii moom ko solal nii maa ngi gërëm di ko sant bëggee ñëpp di ko gërëm waa kër Cheikh Mourou bi Gueye yëpp waaw di woo yeneen gars yi di woo yeneen si nag ñëw naa nañ yeneen gars yi ñëw ku ñëw ma jox la sat kii rek barkeel kon baax na jaajëf waaw loolu sant kay bu baax tey naka nga ñëw waaw sant rek waaj nañ ak suñuy mbokk waaj nañ bu baax waaw dama la gis da nga ñëw da nga xaw a calme waaw yàlla baax na yàlla ñu yàlla suturaal rek ba ñu yegg seeg jàmm. fi laa fekk Nokia mu taxaw di la séntu dafa yaakaaroon sax doo ñëw. waaw lu leer. boobu ñëwoon ci port bi dañoo xaw a tardé tuuti rek. mais tey lamb ji naka nga ñëwee. lu mu laaj rek ñu def ko bu laajee xeex ñu xeex bu laajee bëre ñu bëre incha allah. baax na ba. doole séebu mais Mbodj nuyu naka tey. waaye naa si. naka ngeen andee seen bër. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonante bi sant suñu ñaari waajur di gërëm waayof suñu mbër boo ko xoolee xam ne pare na 100 pour cent si lépp. billaahi yoof yëpp tey ñu si ginnaawam. kaar yi bari nañ gis nañ jàppale bu baa baa baax a baax boo xoolee da ngay xam ne mu ngi si état te doom naa entraîné te duul nalaw quoi xool gën a xeeb ko yomb na quoi. mais bu dalantee mbër ku mu mën ci dalanteel si àdduna bu la daanee ba pare bay ñibbi ba woon la si nga koy jox cër. kon jàpp nga daal euh, dina yombee si ñun pare nañ ci bu yàggee pare nañ ci bu gaawee pare nañ si xeex pare nañ si lépp moom loo xamante ne lu mu andi ak lu mu andiwul ñun dañ koy andi te gëm nañ ni bis bu ñu roofantee ba dalante bu yàlla dafay jàmm rek yàlla li mu maye bu ko nanguwul billaay dina ko daan jël bu rëy. foo toll. waa ñun ñu ngi toog di xaar rek ndax amoon nañ fi combat combat bi yaaxu. yaakaar jaratul woon sama di ko tudd quoi mais Mor Kankaam la mais amaan na combat quoi. mais boobaag léegi nga toog di xaar xaar bi xaw a yàgg. ah boobaag léegi nga toog di xaar xaar bi xaw a waaw xaar bi yàgg a trop. te aussi ñi lay jàppale sax dañ lay soññu si ana combat ana combat yi. nag ñoo war a ñëw ñu bëre te bàyyi ay tontu bi. ay trois avance trois combat billahi wallahi taala dañ ma ko doxal boo yëpp delloo avance. billahi wallahi yàlla ma tim. xam nga gars war a bàyyi on tontu bi ñi nga xamante ni ñoo war a bëre suñu biir nga ñëw ñu bëre. lamba ji amul sedda ku bëgg mais fii du ñu la fay xaalis lu sedda loo xamante ne tey jii da ngay ñëw pour daan dem sa yoon loolu amul fii si làmb ji pour l'instant dara yomb fi da ngay xool combat booy sax a métti kon tey lu yomb amu fi nañ ñëw ñu mayante xaalis temps bi xaaruñu comme ñaan comme ñaan waaw suñu adversaire bari nañ fi ingénieur mais yaa ma gën a xam sa mbëri nu mu demee ko si tudd day a bëree moom wala yaa ngi si kawam da fekk demeewul noonu quoi mais ñun nañ ñi ñu làmba boole ndax làmba mënoo si kenn mënu si génn gin kon tey nañ ñëw ñu bëre man xooluma sax mbër mu siiw mais na doon mbër mu prouvé sax ñun ñu man ma ak moom yombalal naa leen lépp. kon baax na ci kanam. waaw jaajëf. Caatu Yoff nuyu naa la. maa ngi fay bu baax. ci loone sant yàlla bu baax kay. tey naka nga ñëw. comme ni ñu daan ñëwee rek ànd ak suñuy mbokk ñëpp ñaanal ñu. waaw tey ku la gis dafa mel ni pare nga def fi mu toll. ñu ngi sant yàlla bu baax liggéey na li war a liggéey lépp ñu koy bàyyi si loxo yàlla quoi incha allah. sa digganteeg Youssou Ndour xeex dina ci am. pare naa lépp lu mu lépp lu mu bëgg wala lépp loo bëgg yow. man moom lépp lu bëgg ma fekk si gas allah rabi. kon baax na ci. ok na caatu yoof doomu yoof caatu montagne. arbitre sifflé na. doomu yoof moo ñu wan ginnaaw caatu montagne la ñu lool. caatu montagne doomu yoof. doomu montagne. eh. doomu Yoff doon na Pikine léegi waaye dalul xeex na ak doomu Yoff Thiatou Montagne jël na tànk mbaa doomu daanu du ci am doomu daanu du ci eh! Eh! doomu Yoff lu muy doomu Yoff Thiatou Montagne doomu Yoff Thiatou Montagne doomu Yoff jël na léegi benn doomu Yoff Thiatou Montagne caxabal na ko caxabal planqué na ko planqué da koy daan waaw Thiatou Montagne planqué ko daw moom Thiatou Montagne daan na ko nee na ko man sama bakkan laa ci teg oh, doomu Yoff doomu Yoff il n'est pas mérité Tek Choc Laye Bruce Lee Tek Choc moo ñu woon ginnaaw Laye Bruce Lee moom la jaakaar lool Tek Choc Laye Bruce Lee nga téente ñoom ñaar Laye Bruce Lee Tek Choc Laye Bruce Lee nga sëq ci ca gaña Tek Choc ya nga sëq nga yuuk ko dajale day yóbbu ko dajale ba tey te ñoom ñaar arbitre bi àtte na jox nañu victoire ki am mooy Tek Choc arbitre jox na victoire Tek Choc Bush la ñu jàkkaar lool arbitre bi laaj na George Bush laaj na Boy Diakhao arbitre bi sifflé na George Bush Boy Diakhao ñoo ngay demee wet Boy Diakhao George Bush dafa mel ni dañoo bëgg a xeex Boy Diakhao daa bëgg a dem wala lu mu a def Boy Diakhao cokkaas na léegi Boy George Bush Boy Diakha George Bush ñoo xeex ñoom ñaar Boy Diakha George Bush xeex nañu doon na ko mu daanu mu daanu Boy Diakha door na mu daanu oh xale Diakha Sine door na ko mu daanu George Bush mi wax nii George Bush mi wax nii noonu ci diggi géew dox ci dëggante Nokia bu Bada Dione ak Giro Seras écrit dóor dóoraat arbitre baa wax ak ñoom maa ngi fi ak ki nga xamante ne nii mooy Baye Djili Baye Djili noo gisee ñaari ñoom ñaar ñëpp yàgg nañoo bëgg seen combat Giro naan Nokia damay daw Nokia naan daa jotagul dem nañ ba benn moment nu ki yaa jël combat bi giroo ne ko ñi la wax nañ nga jël ko dañ lay nax waaye en tout cas lu mën a xew mooy nu ki yaa mi ma gis mu ngi ji état de forme bu jaar yoon macha allah liggéey na ci combat bi. giroo nag balaa ñoo xam ban lan la liggéey ci combat bi foo mu jàppante parce que boo xoolee nu ki yaa moo ko ëpp masse musculaire mais giroo daa mën a bëre ba pare daa saay saay ci bëre daa pànk ci làmb nu ki yaa mu ngi dox ci kawam. Giriom koy mu euh, dox ci kaw Giriom mais Giriom ngi reculer di ko déglu en tout cas daal ci kanam tuuti ragal naa dinañ bëre waaye ragal naa xeex bi dina ci bari loolu Ousseyn. xeex bi mënu cee ñàkk. Nokia sakkatal na ko léegi. li waatoon nañu ba ci catu saako yi. Giro Seya samp suul tànkam. faw xeex. am Diop am nañu Ndiaye mënu cee ñàkk. waaye xeex bi nag su doon maay Giro dama koy éviter. parce que damay cokkaas rek pour jéem a jaww dóor ma ko léegi. cokkaas na. pour man bu càkkaasee rek buntu feeñ bu gisee atro war naa mën a bëre ndax giroo mën na bëre macha allah mais nag yaa bu doon maay moom dama koy digal mu xeex ak moom waaw parce que xeex bi daf koy arranger ci combat bi moom nag yaa xeex mooy avantage am mais giroo bëre mooy avantage ndax ku ci nekk dafa am lu mu mënee. maa ragal te ragalu ko. le fait que mu wan loolu nag yaa nag yaa kii daf maa ragal bu ko bëggee jàpp na te jàpp bi ñorut mun naa jël coup giroo coup mun na koo yàqal làmbam. bu ko jëlee te jëli bi jotul Giro mën naa jiwaloog moom jël tànk bi te jëli bi du jot moo tax en tout cas lu mën a xaw Nokia yaa lu mu mënti def nay sàmmaat bu baax li muy def te xam ne Giro ndaanaan la waaye Giro bu doon maay moom tamit dinaa ne ko mu moytu bu baax a baax a baax jël kawu Nokia ndox nga xam nga ne làmb ji daa xuma ci doomu daanu. waaw mu ñàkk parce que ku ci nekk ñoom ñaar dañu bëgg a xeex. Giro bëgg na xeex Nokia bëgg na xeex mais Giro daa ñëw tey fi mu toll nii nëbb xeexam mais gis nga eh, dafa eh. ñëw pour nëbb xeexam nëbb boobu muy nëbb xeexam nag mooy waral ñoom ñaar bu ñu xeexee rek dina bari lu bari lu am gis nga mais génn yi muy génn saako yi wóorul parce que Nokia fi mu toll nii Giro buy génn saako yi lu bari mun naa. avantage mun na di jël yu bari te yu bari mun naa yàq sa làmb. mën naa yàq sa làmb. Giro Seras Nokia jàppante Nokia kor na ko xool tànk ya lan la wala lu mu ci bëgg a def Nokia ngay dóor dóoraat na eh, ay bu man dóor ma ko eh Giro xaa dafa dof dóor na ko kuy daala dof parce que kuy Giro di dóor moo gën a baax yi Nokia di dóor ndax Giro daa xam fi muy dóor moo tax ma ne la Giro buy xeex ak Nokia mu jàpp sax xeex tane na ci moom mais na moom corps à corps moo baaxul ci moom te Nokia bu doon maay moom damay génn ci combat bi jàkkaarloo Giro jéem a xeex ak moom ndax faaw ñu jëlante ay ñoom ñaar. doomu daanu doomu lu ma la doon wax lu ma lay wax lu ma lay wax waaw waaw. Guiro Séras dem na ci àll ba dellu suwaat Guiro Séras a ngay dellu gannaaw Nokia ngay dox ci kawam Guiro Séras Nokia Guiro wàcc na ba tolloog moom Nokia cokkaas na léegi Nokia Guiro Séras ñooy noonu. Giro moo ngem moo ngem lu bële li teg ci mooso bu weex bi yooyu yëpp ngut buntu la daw na jël ko. jël na tànk Ousseyn jël na tànk ba Giro da koy daan daan na ko wala déet daanu ko war na ko ndombo doo ci génn Nokia doo ci génn Giro daa mën a bëre Nokia doo ci génn doo ci génn daa mën a bëre Giro war na ko ndomba la am Giro war na ko ndomba xoolal ma Nokia Giro war na ko ndomba Nokia bu génnee ci lii ma xam ne ndaanaan la ci bëre lii bu ma ko yaa génnee ma xam ne ndaanaan la. Ndiol Sakho ma penalty dama koy wër ndomba bu baax Ousseyn. gën a jàpp de. gën a jàpp parce que nii mu ko wëree ndomba. wóorut à tout moment nu yaa mun naa génn. en tout cas carte d'appui am na wala déedéet amagul ba tey. en tout cas tànk nu ko yaa bi ba léegi mu ngi ci kaw. giroon na fi mu féete mu ko bu doon maay moom Ousseyn damay génn saako yi. damay fexe raam parce que saako yi jege na ma. génn jàmbaar dawul dafa wuti doole. Giro na bu doon maay moom damay def rotation gën a jàpp bu baax. waaw mel ni mu ngi lay dégg téye bu baax a baax a baax bañ mu rëcc. parce que lii penalty la ci làmb. mën mu ko am da war a exploiter. Giro séance no ki yaa la nga wax loolu la Giro bëgg a def gis nga. gis nga dama la waxoon gis nga da koy gën a da koy jege. parce que jege boobu mooy avantage am. mu ngi yaat. waaw daanaka ko. Guiro daan na Nokia. daan na Nokia. Guiro daan na Nokia. Guiro Seras daan na Nokia. Guiro Seras daan na Nokia. Guiro Seras daan na Nokia. Guiro Seras daan na Nokia. jugóol ci koom Guiro daan na ko. Guiro Seras daan na Nokia. jël ko Guiro. Adama kaay. mais dafa am loo ma waxoon avant la am. waaw. dama ne la Guiro day ñëw pour xeex ak moom. man ngeen tegoon xeex. dañ jàpp ni ñoo ko mën ñoo ko ëpp doole ñoo ko gën a physique. mais dañoo gis ñu sumeeku. Nokia ëpp leen volume. lamb du rëy. Guiro dañ ko liggéey loolu metti teg ci moom ay coono loolu moo tax tey jii mu ñëw wane lii. ak mobilisation bi. mobilisation bi li moo ñor président Lat Diop moo ci jàpp futur maire Golf Sud moo waral mobilisation bii ngay gis nii Lat Diop moo jàpp biñ jënd billet yëpp supporter yëpp esat. kontaan naa jox kaay ba laaj na leen ba xam pare ngeen. Kalango moo ñu woon ginnaaw. Koña numéro 2 la ñu jàkkaar lool ñoom ñaar mbokk yi ku ci nekk ci defet nga jógee ki nga xamante ni mooy xew boo Diop moo ko daan bu PBA Ndiaye waaye kii di Koña Ronaldo ñëw moo ko daan ñoo ngay lewaatoo loxo bi lay aj rek gis nga loxo bi lay aj rek moom xeeru parce que Koña ci tànk yi bëgg a dem boo ajee loxo bi nag génne mun ngaa mun am li nga bëgg gis nga dina ko daan wala déet Koña dugg ci piège bi munu rëcc xeeru ngor dafa doole da daan daan na ko. daan na ko ko non dina daan. bu wu lamb la. juróom moom la daan na ko yaa. am na ko. déet bul door xeeru bëreel bul door bul door. nga koy wan li ma di ma dégg. bul door loolu lamb la. da koy yéen waaye rek la daan daanu na daanu na daan na koo doole yemul Ousseyn doole yemul. Xeeru Ngor daan na Koña doole yamul Ousseyn doole yamul Ousseyn. Koña dafa yàqamti bëre bi. waaw dafa yàqamti bëre bi li doon togg ñorul. daa doon na jël ku siif ko. parce que dafa am ku ma jege ku bokkoon si man. yàlla moom combat bi. Arouna Samb ko may. Arouna Samb mi maanaam moom ñu ngi ànd ku dee bëccëg. yàlla na ko yàlla yërëm. nee naa leen maa ko man leen ma. sama place lamba. wallahi du fii. si kaw. te incha allahu rabbi dinaa jël roi des moom la. mais man xam naa ne maa ko mën te wan naa ko ne maa daan ko bëri wan naa ne ma daan ko parce que bàyyi ñes dama mën a bëre te incha allah dina leer si lamb rek maa ngi si lamb maa ngi si lamb ñëw leen seet sama ñu waxtaan ah. ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi caatu ngewel booy Dakar caatu ngéwél moo wan ginnaaw booy Dakar la nu jàkkaar lool Arbitre baa ngi laaj ay jugeem Boy Dakar kaabar na ko Boy Dakar arbitre bi sifflé na Boy Dakar teg na pied teg pied gauche Boy Dakar am na lu mu léemu moo ngay léem pareegul doon na ca loxo ba ñoo ngay lewaatoo mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Boy Dakar tibb na ci suuf daa bëgg a gaawal combat bi Ousseyn garde la ak garde normale Caatu Ngéwél na sóoraale bu baax tànkam yi Boy Dakar ci tànk yi la jëm te booy xeex te xeex bi baaxul mun naa jiwaloo ak yow Boy Dakar nag fer na ne bi wàcc ci suuf xaw ma lan lay togg waaye ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk xiifoon na sa morom si contrat yi ku ci nekk xas-xas loo na moromam ña ngay xeex waaye door mu daanu moom ragal naa ne am tànk ba jël na ko da koy daan daan na ko jël na tànk ba daan na ko Ousseyn vite fait bi daan na ko lu ma waxoon wàcc bi moo ma jaaxal ci caatu euh, booy Dakar bi daf maa yéem ci caatu ngéwél parce que ni mu wàccee boo suufee ba wàcc mais mais caatu ngéwél mi sportif la caatu ngéwél comprendre caatu ngéwél mi sportif la man lii bëgg naa ko ci mbër de defen nii loolu lay def da ngay xoolal da ngay féliciter sa adversaire ndaysaan ñi nga àndal nga leen xam ne daan neex ngay daan doomu jàmbur tey daan nañ la kilo daan mun na laa daan ci làmb bu ëllëgee nga defarwaat ñëw mais man li ma ci jaaxal mënoo su Boy Dakar sigi taxaw ne jom Boy Dakar wàcc bu gën laa suufee nga sigi moo tax bi Boy Dakar wàccee sa suufu tànk ba sa conc ba la jàpp. image bi rafet a ngi nii Ousseyn ci tànk ba la jàpp parce que Boy Dakar ni mu wàccee ci suuf tibb suuf mooy wane ne benn attaque la am ci combat bi bu attaqué daa war a jàpp moo tax bi mu attaqué xeelu ngeen euh, caatu ngeen di dóor gisul coup bi Boy Dakar daa jiwala coup bi jël ci suuf bi mu amee tànk bi rek da koo dëj mu toog. mbër mu mën a bëre fu mu jàppee sa tànk Ousseyn làmb ja jeex na. waaw boo dee kaa ngi noonu di ñëw. xoolal la muy def. xoolal la muy def maa jéeri. yoo yoo. Eh, asam xam nga soo yoree ay njaboot. soo yoree ay njaboot soo leen di yar ku nekk da nga koy teg sa place affaire bi noonu la demee. gis nga wàcc ba gën a gàtt. musu gi taxaw ne jon nga wàcc. xam naa ne day ñëw xeex. xam naa ne day ñëw xeex parce que cokkaas na ma xam ma daw dóor ko góos. muy daw di ñëwaat mu yaakaar ne man dama indi xeex mu wàcc jël ko suuf mu jeex. mu nekk benn cong ak waaw ngir billaahi combat yi wax rek la si amoon mais sant yàlla daal sant yàlla. barke mobilisation bi tey. mobilisation bi waa ñaari tali ku si mel ni sama yaay Ndeye Sala Diop Dieng njóogo ambassade France jàpp na si bu baax a baax a baax ñoom docteur Sène ñoom euh, Jean Baptiste Diouf ah ñoom jàpp nañ si bu baax a baax. ak euh, Jibril Wade Jibi Wade jàpp na ci bu baax a baax ñaari tali kenn ñëpp jàpp nañ ci. léegi lu ci des. barki alxuraan. ah. lu ci des. après ñëw leen koñ ba. Youssou Ndour ko na soow lii lu mu doon Youssou Ndour lu muy sottee ko nii arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi combat bi dox ci diggante Youssou Ndour Thiatou Yoff Thiatou Yoff a ngi waree Yoff Youssou Ndour a ngi waree Guédiawaye arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. arbitre baa ngi wax ak ñoom. arbitre bi pare na. Youssou Ndour pare na. Thiatou Yoff pare nañu. arbitre bi sifflé na. dimanche. 16 janvier. il heures 43. ñaari xale yaa ci digg géew bi. Thiatou Yoff ñaan na taf ci gémmiñ gi. Youssou Ndour ñaan na taf ci bopp bi ñoo ngay demee ñoom ñaar Caatu Yoff da lay wor ñëw ci bëre bi te ñoom ñaar ku ci bëre kenn ki xeex kenn ki day ñàkk làmbam Ousseyn li ma ci mën a xam mooy Caatu Yoff doole daanu ko bëre dëgg koy daan bëre koy daan parce que boo xoolee am na taay bi am na gabarit bi te am na doole bi Ousseyn Caatu Yoff boo ko gisee nii mu toll nga xam ne vraiment ndaanaan la ci làmb Caatu Yoff actuellement ci làmb li mu war a wane ci làmb yaakaar naa ba tey waneeku ko waaye saa yu amee combat ñu ne am na bis waaye Youssou Ndour combat bi weesu da cee lu bari diggante ma Bébé Diouldé dañ ko wër ba muy waaj a daanu ba yaakaar daanu na mu yeggale xale bi jottali ko daan ko muy wane ni ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ ay champion lañ ay ndaanaan lañ ci làmb Ousseyn. kenn ku ci nekk làmb ji soo ci génnee mën na laa yóbbu fu sori sa carrière mën na defaraat sa làmb ba tax xale yi yàqamti wuñ ci dara. bi ñu sottee ko seen gàllaaj waajaay bi yàgg na mu mel ni Modou Lo Balla Gaye Ousseyn bu sori ñoom ñaar ñii combat bi àtte na boppam tey combat dafa am stade Diop Iba Mar combat am fii stade Diop Iba Mar armée moo fa doon bëreeg xale bi nga xamante ne mooy ambulance da ngay xeex door mu daanu door mu daanu door na ko mu daanu waaw door ko mu daanu door na mu daanu Youssou Ndour jël na ko lu ma la waxoon Ndour mu daanu Youssou Ndour bu xeexee ñàkk làmbam Youssou Ndour bu xeexee ñàkk làmbam jaat yo jaat yo loo wax damay sant yàlla bu baax